ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara te di leen baalu xaq mu mel ne rek àdduna tedd nga dafa am solo si doomu aadama bi te juróom-ñaari mbir ngi ni yoo xamante ne ni jamono bu ko doomu aadama wottoo muy juróom-ñaari baat yi dana am tedd nga si kanam suñ boroom subhanahu wa taala dana am tedd nga si malaayika yi bàkkaar bu mu mën a def itam yàlla dana ko ko jéggal doonte ne bàkkaar yooyu itam dañu fees duusi géej yi yàlla itam dana ko baaxe jaamu yàlla dana ko yomb lool dana am yiwu àdduna ak yiwu àllaaxira dundam ak dem yépp aw yiw lay doon bi si njëkk mooy jullit bi lépp lu muy tàmbali su ko tàmbalee si baatu bismillaahi barke dina si wàcc ndax sallallahu alayhi wa mi ngi wax ne bépp mbir moo xam ne tàmbali nañ ko te tàmbali wuñ ko si baatu bismillah du barkeel bi ko ñaareel mooy lépp loo xam ne yaa nga sa nekk di sa yëngu bëgg nañ jamono boo xam ne noppi nga sa yëngu yooye itam nga ne alhamdulilah sant yàlla suñu boroom kon li gën daal mooy doomu aadama li muy tàmbalee mu di ko tàmbalee baatu bismillah waaye bu paree sa la mu nekk itam mu teg si alhamdulilah beneen bi su fekkente ne dafa wax wax boo xamante ne ni wax bu ñaaw la dafa jum wax lu ñaaw si làmmiñam walla mu def jëf woo xam ne jëf ju ñaaw la da sàmm wante si bu dente ne lu néew la wala mu bari ak nu mu mënti toll su ko yëgee ne moom wax na lu ñaaw wala def na lu ñaaw ne si teg euh, astaghfirullah astaghfirullah boobu itam làmmiñ ñu koy tudd waaye xol moo koy wéral beneen bi mooy bu fekkente ne itam yéene na wala mu am lu mu nitéra def te àggagu sa bu ne man fas yéene naa def nangam wala suba bëgg naa def nangam wala bëgg naa dem bërëb sàngam boobaa la gën itam su paree na si teg insha allah du ko defee yàlla man nako ci may ndam dana nako fekke te dana ko defit ci namu gëna rafété benen bi bu fekkente ne itam da nga gis lo xamné ne da nga ko ragal wala nga dëgmal lo xamné ne da nga ko sipté xamu noy nooy def boo waxee baatu laa hawla wala quwwata illa billah yàlla suñu borom subhanahu wa taala dana la may ndimbal si loola nga am ci ndam insha allah rabbi benen bi itam su fekkente ne yàlla dafa wàcce musiba ci sa kaw moo xam musiba ma def ko wàcce ci sa yaram lu mel ne wéradi wala mu wàcce ko ci sa njaboot lu mel ne bakkan bu wàññeeku walla mu wàcce ko ci sa alal lu mel ne alal ja yàqu danga say teg baatu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun bëgg nañ ko ci lool beneen bi itam dañu bëgg jullit bi rek fu mu toll làmmiñam ne say dawal baatu laa ilaha illa allah ana al leyli wa atrafa nahaar guddeeg bëccëg nañ nay fexe toujours làmmiñam di tooy si baatu laa ilaha illa yii daal képp koo xam ne yaa ngi koy taqoo yàlla suñu borom subhanahu wa taala dana la baaxee tedd nga si moom malaaka yi itam danga nga am tedd nga si ñoom comme nuñ ko waxee woon su ko defee mu nekk loo xam ne day jëriñ jullit bi yàlla nañu si yàlla defal njëriñ defal ñu si dégg ak topp lu si ñaaw itam ñu ngi leen koy jéggalu fa tabaarakallahu wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu